Merci, euh, merci euh, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, je pense que wax ji du gudd parce que article 75 comme ni mu ko waxee motion préjudicielle la mais je voudrais juste faire savoir à mon collègue que moom argument yi mu joxe yëpp dara baaxu ci na xool loi yëpp exposé des motifs bokkul ci kooru texte un député en commission mën na proposer ñu changer exposé des exposé des mooy par exemple genre introduction booy def xam nga booy def euh, e, kii ñu def introduction développement conclusion mooy introduction pour wane poser le débat expliquer exactement lan la donc exposer des motifs bi ngay wax bokkul ci corps du texte bi ça c'est un deuxièmement xam nga dafa wax ne retrait de l'article 87 dafa changer ordre du jour bi vous vous êtes trompé l'ordre du jour c'était l'examen de la loi révision constitutionnelle ak examen beneen loi bi nga xam ne moom la ñu war a def léegi donc loolu ordre du jour bi changé wul mais il faut nga xam ne aussi mooy texte boo xam ne adopté guñ ko adopté guñ ko mënul am amendement c'est pourquoi le ministre en tant que représentant du gouvernement a écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander le retrait maanaam ñu dindi article 87 moo tax bi ñu ñëw en commission amatul ñaari article benn article la ñu indi après mu def amendement ci article 29 bi génne 0,8 pour cent dugal 8 pour cent donc je pense que monsieur le ministre xam nga la preuve sama waa ji moom leen rek la bëggoon wax mooy li mu mujje ay day bokk ak du bokk mais loolu mu ngi suñu ginnaaw parce que président a pris une décision historique que àdduna bi yépp ñuy saluer donc je pense que xam nga bu fekkee ne par exemple amoo ay argument yoo xam ne juridiquement c'est tenable c'est ridicule de venir ici di am loo xamante ni moom nga yor donc monsieur le ministre mes chers collègues je pense très bien que argument comme ni ma wax rek dafa am leneen lu ko fi indiwoon mais par rapport aux arguments c'est pas tenable donc je demande qu'on continue à délibérer je vous remercie